copie Libin Pape Djibril nee nga indi café bi grand bourba ay ca boobu lijjantil euh, jàngat beeg euh, café Pape Djibril bi. <laughs> royaume mënul royaume bi baax mënul gan <laughs> ko fekkee boo ko fekkee Linguère nag na ah, royaume bi de ah. ah. en tout cas mais est-ce que <laughs> grand bourba kaddu euh, ñu nuyu sunu grand Souleymane tey dafa am gànt moo tax te wut ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom it di ko ñaanal jàmm comme ni nga waxee nag tey jàngat gi ak Pape Djibril Fall ñu bëgg a seet bu rek ci tukki économique ñuy tournée économique du président de la république euh, di tàmbali samedi ëllëg euh, tàmbale ko nag fële ca Kaffrine war na faa dolob l'hôpital wante tamit euh, dana dem fële ca Kédougou daloo fa it ab hôpital muy ay hôpitaux yoo xamante ni kon équipé nañ ko su ko defee askan wi seen jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram ci zone yooyu ñu daal di koy rek saafara ndax ay région yooyu yoo xamante ni 2008 la leen mais li manqué woon ci ay jumtukaay bari na trop Pape Djibril moo tax rek ñu bëgg quand même faire une lecture sur cette tournée économique du président mm-hmm. euh, mu nekk euh, loo xamante ni lu am solo la surtout ci infrastructure yi nga xamante ni moom la fay moom la fay moom lay dem pour réceptionner euh, je pense que ne bokk na ci jàngale yoo xamante ni euh, Covid 19 bi jàngale na ko mooy euh, sunu carte sanitaire bi il faut que ñu xolaat ko man dama bokkoon ci ñi doon wax ne il faut que ñu am sax un plan Marshall pour la santé boo xamante ni euh, dëkk bu lu mu gën lu mu gën a sori ci Sénégal e encore que Sénégal du dëkk bu rëy trop waaye sori waay bi nangu nañ ko parce que sous développement moom moo demee noonu damay wax ne. 60 euh, ans après dañ naan la le Sénégal des profondeurs ñu ne la Kédougou dafa sori wala Tamba dafa sori c'est parce que dem beg dikk bi ba tey dafa jafe waaye wax dëgg fa yàlla soriwul ndax boo demee feneen di nga gis ne gën na sori. donc loolu nekk ay urgence yoo xamante ni yu am solo la euh, maintenant est-ce que réceptionner ay hôpitaux mën nañ ko tuddee forcément tournée économique. Mmh. donc loolu aussi c'est une grande question waxoon naa ci tournée bu njëkk ba ne tournée économique ban continue lay am ba tudd économique en je pense que ne le président sort d'une période très difficile de contestation bu bu am bu vigoureuse surtout joge ci ci ndaw ñi et que aujourd'hui xam naa ne bëgg na am jokko boo xamante ni bëgg na ko jokkoowaat ak ak askanu Sénégal fii nga xamante ni foofu la ñu nekk fu ñu mën di nekk et que opportunité la pour moom mm-hmm. euh, que mu rencontrer waat ses lieutenants politiques euh, tatewaat le pôle. mais économique ou tournée politique. souvent caractère politique bi moom mooy ëpp dina réceptionner c'est vrai ay ay hôpitaux waaye lam fi mu ne nii responsable politique yi lieutenant politique yëpp daw nañ dem ci seen localité yi. justement à commencer par Kaffrine parce qu'il a une guerre sax déjà ci accueil bi entre Abdoulaye Wilane ak Abdoulaye Sow. dama am suma xarit buy liggéey ci infrastructure yi féete boor boobu. nee na ma dañuy waxtaan démb ci guddi mu ne ma man damay sax yërëm président de la république ma ne ko lu tax mu ne ma parce que ni ma gisee ñuy waajale tournée yi justement tout te fait pour mu bañ a gis la réalité des choses et ça se passe comme ça malheureusement. mais pourquoi tudde wuñ ko benn yoon rek tournée politique comme bañ bañ a maanaam indi jiixi jaaxa ci ci xel yi quand waaw xam nga lool loolu mën nañ ko mën mënoon nañ ko tuddee noonu. waaye xëy na su boobaa tam day gën a métti ci ñoom mais noo mën di def rek. politique lay lay jur parce que tournée économique tey boo xamante ni boo demee la place du secteur privé local ñi nga xamante ni ñoom ñooy industrie locale yi fa nekk ñi nga xamante ni ñoom ñooy peut-être bailleurs yi ndax di nga fa organiser ay B2B ndax di nga fa organiser yenn atelier yu am solo yi nga xamante ni tournée économique tey man suñ koy def pour man fi ñu fenn rek la ñu waroon sukkandikoo base bi gën a solide mooy les conseil des ministres décentralisés yi ñu defoon. mais tey leen. xool lan lañ ci def. lu luñ ci deful fu ñu ci toll pour man base la tableau de bord la mooy tournée économique yi ñu defoon nga xam dañu xayma woon lépp loo xamante ni besoin la dans tous les domaines ci zone boobu li nga xamante ni moom la ñu soxla hôpital benn benn élément la ci benn écosystème boo xam dañ ko soxla parce que tey jii on parle d'infrastructure mais tey jii y a le personnel y la motivation du personnel Euh, am na yeneen yu bari yoo xamante ni war na ci ànd ba nga xamante ni dinañ am dëgg-dëgg hôpital bi nga xamante ni moom lañ soxla infrastructure benn élément rek la donc man li may bañ souvent ci yu mel nii mooy ñu réveillé waat nday ndeysaan ay faux espoir ay yaakaar yoo xamante ni euh, dina kii ni et eh, eh, eh, astu il faut aussi ñu arrêter di def la visite du président de la république ci biir réew mi comme un événement ça doit pas être un événement ça doit être banal. question boobu ci laa bëggoon revenir sans fi may ñëw lan moo war a tax njiitu réew war a jóg dem ci askan wi. mu rëy loo xam ne wala kat nga gis sa président de la république mu nekk guléet ci yow. ça doit être banal ça xam nga boo demee Maroc bi nga xamante ni royaume la sax buur lañu am mais buur bi dëkk bu nekk am na fa pale dëkk yu mag yëpp. dafay def ay rotation mm, bien des fois bu fay séjourné sax. Mm. visite inopinée lay nekk du ñu yëg ne moo ngi fi. et bu fa demee dafay séjourner séjour boo xamante ni dafay redynamiser ville boobu donte ma ngay dox waaye daf koy gën a doxal parce que ñëw na nekk fa ñu yëg ne kii kenn la ci ñun mais déconnexion bi am souvent moo tax muy rëy rëy boo xamante ni est-ce que du fossé bi am seen diggante li nga xamante ni si dañuy jël def ko. mais warul am ko lu kawe teg ko teg mais warul am mais là où le président doit faire très attention mooy ses lieutenants politiques. surtout ñu jëm ci ay échéances électorale locale yi nga xamante ni fi ne yóbbu na seen xel yi tout le monde veut être maire te dafay fàttali dafay fàttali la situation bi parti démocratique Sénégal nekkoon nekkatul woon sax parti démocratique Sénégal mais c' était la mouvance présidentielle en 2009 bi ñuy dem ci élection 22 mars 2009. exactement parce que finalement parti au pouvoir boo defee juróom-ñetti at ci sa ci nguur da ngay ñu bari dañuy màgg ci sa biir kuréel. amee dayo boo xamante ni entre ministre yeeg DG yeeg ñi nga xamante ni ñoo ngi xaar ndombo tànk chaque questionne et que finalement da gis guerre ouverte yoo xamante ni ci dëkk yi sax da naan waaw lii nan la mën a àndeek xel mu dal ak liggéey ak développement tey jii ñoom ñëpp dem nañ ñoom ñëpp dinañ fa nekk di dóorante di xeex di mobiliser xaalis bu bëri daal di génn président ñëw ku ne bëgg ko wan sa pancarte ku ne bëgg koo wan ne ko maa ngi liggéey buuxante bu métti. lay nekk mooy ñoom duñ ci gaañu askan wi moom moo ci lor bu fekkee am na ay violence mais day concerné directement amul benn. mais mais malheureusement. c'est-à-dire que pourquoi loolu di continuer toujours man lu ma jaaxal la. c'est-à-dire que tey ji ñoom ñëpp abandonné nañ di boo moytul une semaine bi yëpp ñu muy waaj visite bi dama ne président yii sax mën na koy bañ a yëgle parce que fi mu ne nii une semaine bi muy waaj visite bi yëpp gars yi duñ liggéey ils di ko waajal. mobilisation ku nekk bëgg nga euh, xool fan ngay def dugal xaalis ba nga xamante ni alors que li nga ci bëgg dëgg doo ko ci am vivement que les tournées du président de la République soient véritablement économique comme ni nga koy euh, maanaam mobilisation ba fay am la ñu fay mobiliser ci xaalis dépense yi loolu yëpp. est-ce que gën woon opportun dimbalee ko gune ya nga xamee ni ñoo ñoom la ñuy dajale foofu di leen fay pour ñu tertu est-ce que gënul woon ñu mobiliser xaalis boobu jàppale leen pour xool. yàlla nu ñu mën a génnee ci jafe-jafe yi ñu nekk. Cheikh Tidiane sa laaj bi de tontu baa ngi ci biir réponse baa ngi ci biir moom moo gënoon fuuf mais doo xam lu xew en fait c'est-à-dire que mooy li ñu wax léegi rek ci responsabilité euh, je pense que souvent du ñu mesurer la pleine mesure du ñu am la pleine mesure ci responsabilité bi nga xamante ni moom lañu leen dénk waaw muy ministre un ministre un un un DG. un ministre qui habite Kaolack c'est pas un ministre de Kaolack un DG qui habite Kaolack c'est pas un directeur général de Kaolack mais tey jii kuñ ci nommé boo demee ci <coughs> ci ci ci barab bañ ko nommé waa dëkk ba nga fay fekk moo tax chacun ñëpp ay xeex pour am ministre délibération euh, kii liste gouvernement publication liste gouvernement comme délibération BAC ñëpp day mel ni ci nen la ñu toog chacun va avoir un ministre chacun va avoir un DG et si les choses marché marchaient convenablement kenn du soxla xam ministre wala am ministre ci sa dëkk. ça renvoie au parole d'un ministre boo xam ne bi koo ko falee euh, ci guddi ga mu naan suñuy jafe-jafe jeex na. Ah, man boobu laa bëgg a gis tey man boobu laa bëgg a gis tey. te moonte fa la jafe-jafe war a tàmbalee ndax sasu dañ laa sas coono askan wi. mais mooy responsabilité. askan woowee responsabilité tamit ndax yow bu fekkee man su ma amee sama jafe-jafe gisuma la bu fekkee bu ma xëyee gisuma ceeb bu ma lekk gisuma la bu sama wajuru nekkee ci jafe-jafe nga xëy ñëw taxaw ne ma kaay jàppale ma ñëwal solal jëlal t-shirt ñëwal ci kaar jàppale ma est-ce que tamit quelque part euh, askan wi amul rôle bu mu ci war a jouer pour wàññi doole jooju nga xamante ni si dañ coono boobu ñu leen di teg boo ma wooye ma bañ a ñëw ndax bu ma nekkee ci coono gisuma la xam nga xam nga dafa am lu métti aussi mooy mooy ñàkk tam dafa métti waaw souvent ki nga xamante ni moom moo ci nekk yow sax mën ngay réfléchir mais moom xëy na lu mu lu mu kii lay gën a lu mu lu mu dundee lay yaakaar loolu mooy bu njëkk bi beneen bi aussi mooy yaakaar mooy koo xamante ni ñëw na dig la am lu mu yee ci yow nga yaakaar waaye yàlla xam na ne ñàkk mu ñàkk baaxul. sëñ Moussa sëñ Moussa Ka dafay wax ne ñàkk baaxul ci waaju baax. Mm. waaw mais bu ñu nee <laughs> bi est-ce que tamit euh, c'est pas légitime xoolee ni contexte bi ñu nekk ne nga ñu ngi jëm ci ay élections locales boo xoolee entre les deux vagues aussi le président était presque dans le bassin arachidier boobu nawet bi ñi ngi ci woon moment bi ñu ngi dëng malaat. beneen beneen nawet par l'agriculture. <laughs> on a vu quand même que d'après les statistiques du ministère on a eu quand même une production record jëm ci gerte gee yeneen meññeef yi est que aussi boo xoolee wàllu wér-gu-yaram comme ni nga ko waxee infrastructure yooyu parce que c' est des yoo xamante amoon nañ ci ay jafe-jafe. xam nga lu may xaar ci président de la république mooy bu demee ci tournée économique boobu na dalal baykat yi na dalal sàmmkat yi na dalal euh, métier corps de métier yi fa nekk na yóbbu secteur privé bi ñu am national ñu def ay débat à bâton rompu. yoo xamante ni amul texte yu ñuy waajal amul dara lu ñuy waajal nit ñi génne li nekk ci seen xel génne li nekk ci seen xol jàkkaarloo ak moom teg ko ci table ci ñu def benn benn sans complaisance ñu jàngat parce que sunu l'économie l'acte trois de la décentralisation li mu bëggoon ba tey dañu ci tagatémbe territoire viable yooyu mu bëggoon compétitif et porteur de développement durable Chérif liggéey bi dafa des ba tey parce que boo demee tey ji fa nga dëkk bu ma demee fa ma dëkk tey ji da ngay gis ne liggéey boobu des na lu bare bari bari mooy la viabilité de nos territoires l' économie des territoires est ce que tey jii territoire yooyu am na lu lu fa juddoo loo xamante ni du ñu soxla génn di de di ñëw di ñëw ci taax yi comme on dit Ndakaaru wala soit ñu naan dañuy jël bato yi wala ñu ne dañuy jël dañuy dem feneen. mais sur le plan social on voit que quand même des efforts. yoo xamante ni daf nañ ko en terme de réalisation comme leen ko waxee ci ay tali yi dem ak dikk ci wàllu ndox et cetera. xam nga xam nga xam nga développement moom économique et social harmonieux jamono bu nekk soo defee rek am na leneen lu nit ñi di laajaat. Hmm. parce que boo defee piste rural ma ne la pourquoi ñun ñun yelloowu ñu ñu ñu talil ñu bu baax bitumel ñu. waaw ah, pourquoi yow mi jógee Pikine di ñëw Almadies war a jaar ci tali bu ñuul bu ñu goudronné man nga ma war a jël tali bu xonq su ma neexee ma wax loolu te ñoo bokk ndax xaalis bi ñu defaree fii la ñu defaree foofu hmm. donc il faut que les citoyens aussi soient beaucoup plus exigeants. avec les dirigeants mooy que ne dañu am loo xamante ni seen seen seen seen seen yëf la ñoom ñoo ko moom ñii tamit dañu am devoir boo xamante ni dañu ko war a def parce que il faut pas que les populations aussi ñu leen di tàng tàmmal jamono bu nekk ñuy contenté wu du peu waaw et là c'est pas la responsabilité directe sax du président de la République le président il délègue mais ñu muy délégué souvent ñoom ñooy am jafe-jafe pour mën a jëmmal li nga xamante ni moom la bëgg visite bii muy dem nag comme visite yëpp d'ailleurs dinañ def xeetu protocole yoo xamante ni encore une fois pour mu gis la réalité des choses dafay difficile. dinañ ko indil ay chiffres dinañ ko indil ay nangam dinañ ko indil nangam waaye par rapport ak réalité bi dafay jafe nee naa la démb téem un témoin oculaire qui travaille ci yenn ci chantier yi. moom moo ma wax ne ma dama yërëm président parce que ni ma gisee ñuy organiser visite bi soo moytuwul bu ñëwee du xam la réalité des choses mais moom mënul jël ci initiative bu boppam euh, xëy na dafa am protocole boo xam ne dañ ko teg am agenda boo xam ne dañ ko teg mais nga jàdd yow demal sa bopp ci yenn dëkk yi jéggi ñi nga xamante ni si xëy na ñoom la ñu njort ne ñoom ñoo waroon a wax ci turu askan wi parce que yenn saa yi tamit day am ñoo xam dañ leen naan leen buñ la désigné ne la waxal da li ngay wax mais bu fekkee sa dañ la fekk ci sa askan fekk la ci ay jafe-jafe buñ la waxal di ko wax baykat ba nga fekk ci biir toolam daw romb dëkk ba nga doon dem jàdd dugg beneen dëkk fekk ci mu nekk ci ay jafe-jafe kooku dina muy dund mais ka nga xam ne dañ laa jox fukki junni ñëw ne la président day ñëw bu ñëwee nekku lii nekk la lañ la wax dong nga koy wax Euh, d'accord na et puis euh, wax rek que nit ñi assumer seen seen indépendance c'est-à-dire que sa proximité avec le ministre wala sa proximité avec le DG wala ndax gis nañ la avant ministre bi ñëw wala ndax gis nañ la avant DG bi ñëw nga war a waxal ministre bi wala nga war bul nekk porte-parole lu ñooñu mm-hmm. ñiy représenter aussi nañu représenter askan bi wax seen xaqulaay taala pour man soixante ans après dañu nekkoon rek ci ci ci taf yëngal boobu ci ci naxante bi ci wax loo xamante ni c'est pas conforme à la réalité gis nga chiffres yi nga fi wax léegi c'est très bien nga ne selon le ministre d'ailleurs ce sont les chiffres du ministre parce que chiffres yi <laughs> chiffre moom mooy jafe-jafe bi ñu gën a am <laughs> au Sénégal et <laughs> parce que chiffre boo ko génnee rek léegi mën nañ ko contester mooy li benn borom xam-xam doon wax ne chiffres c'est des êtres très fragiles yoo xamante ni boo leen manipuler loo bëgg rek ñu wax la ko mm-hmm. loo bëgg ñu wax la ko mm-hmm. donc et difficulté boobu je pense que astu lii lii ci am solo rek mooy nit ñi nañu jël seen responsabilité xam ne président de la république kenn la ci ñoom mm-hmm. koo xamante ni dañ ko dénk ñoom mu ñëw ci ñoom di xool la mu la mu joxoñoon ngir ñu jëmmal ko ndax jëmmal nañ ko nañ ko war a jëmmale na situer les responsabilités correctement suñu ku ñu war a sanctionner positivement ñu sanctionner la positivement ku ñu war a sanctionner négativement ñu sanctionner la négativement mais amul nag wax dëgg fa yàlla koo xamante ni dañ ko fi war a taggal ay maamam wala di ko fi tëggal ay ndënd wala yendu ko ci naaj bi parce que loolu la ñu war a en réalité man man tey ji su ma jëlee nit di ko liggéeyloo sama kër fay ko suma xaalis Cheikh jox ko sama xaalis mu liggéeyal ma kër gi ba pare mais est-ce que dinaa retourner waat nag di ko taka taggal ay maamam di ko di ko kii c'est pas possible. te docteur boo ko wax lu lay métti nag mënu laa faj boo ñëwee ni ko dara méttiwu ma fekk sa fekk sa bopp a ngi xar moom itam da ngay sonal sa bopp. Euh, on euh, bi mi ngi am ci contexte boo xamee ni dañu nekk ci polémique ak achat avion présidentiel bu bees plus de 57 milliards ci sunu xaalis. Euh, maanaam euh, dépense somptuaire yooyu ak waa ji fi mu jëm précarité bi mu fay fekk quand même y a décalage énorme xam nga <coughs> président de la république kenn du wax ne warul am avion dafa war am avion war na am avion bu am solo c'est moom laa doon wax keroog ci bi ñuy def édition spéciale bi ma ne bon dafay dafay revenir ci débat bi par rapport ak Karim Wade bi ñu doon wax ne dafa am jet privé mais xam nga boo ne Karim Wade dafa am jet privé ci durée bi mu ko utiliser yëpp en tant que ministre en charge de la coopération internationale jet privé bi coûté nañu par exemple 7 milliards mais boo ne coûté nañu set milliards aussi war nga am honnêteté wax jet privé boobu ñaata milliards la dugal su boobaa ñu xool suñ defee rapport bi dinañ xam ndax gâchis la wala ndax jural nañu jàmm te ñi nga xamante ni tey jii ñooy défendre avion bi ñoom ñoo doon màbbal loolu nga xamante ni Karim Wade defoon na ko ak avion ba nga xamante ni tamit papaam jëndoon na ko donc encore une fois débat bi ni mu ñëwaatee ak place bi mu occupé dafay wane feebar boo xamante ni dal nañu ci régler définitivement yenn problème yi justement problème mu priorité dafay am ak timing bi tey jii ñu bari indi seen xel jiixi jaaxa am na ci parce que la question de l'emploi dafa am mais man question emploi bi li ma ci waxoon dafa leer kenn mënul décréter la fin du chômage te face à un problème complexe nga ci indi ay solutions yu simple moi je fais très attention il pas de solution simple parce que c'est un problème très complexe boo xamante ni dañ koo war a justement moo ngi dem ci territoire yi territoire yooyu ngay développer industrialiser ko mu am une véritable économie pour que nit ñi mën a toog ci seen gox yi parce que exode bi mooy indi émigration bi exode bi mooy indi émigration bi te loolu dañul donc avion bi tamit jënd na ko dans ce contexte nit ñi seen xel yi jaxasoo na ci parce que jàpp nañ ne am nañ yeneen priorité yoo xamante ni am nañ ko gis nañ le train de vie de l'État gis nañu mais euh, souvent da ngay gis ne wax dëgg fa yàlla privilège yi dafay bari trop par rapport ak li nga xamante ni moom mooy réalité bu doy waar bi nga xamante ni day day am ci ci kaw gi. coow li li ko li ko suuxat. est-ce que du njëg gi surtout njëg yi nga xamante ni si dañ ko jël nëpp nëppal ko ne njëg gi kenn mënu cee wax est-ce que bu ñu waxoon askan wi njëg gi li mu jaar dëgg jafe-jafe bi dina egg si fii ndax opportunité bi xëy na mën nañ koo ndang sax si problème sécurité la ñuy wax problème mu xëy na xaalis bi ñuy yàq mais njëg gi lan moo war a tax njëg gi nekk kumpa warul nekk kumpa c'est le droit boo waxee ñu ne le secret défense mais du secret défense c'est-à-dire que spécificité avion bi na mu mel fañ koy daaleeg fa muy daa fa muy kii ak yooyu moom mën nañ ko ban a xam loolu sax askan bi laaju ko wax dëgg fa yàlla waaye nag li ñu ko jëndee boo demee ba jugé utile ne war wax nga ne jënd naa mais da ngay wax njëg gi parce que du sa alal du sa poche nga ko jëlee député yi gis nga liñ ci wax hmm. député yi nee nañ ñoom yëguñu tinuñu ñu ne dañ ko dëxëñ ci budget ministère de la défense ñu ne sax dañu d'accord ne dafa am consensus boo xamante ni ministère de la défense débat du ci am loolu tamit mën na poser yeneen problème problème yi muy posé c'est vrai secret défense baax na trop waaye nag nit ñi mën nañu valablement poser ay questions yu légitimes mooy kan la jox marché par exemple armée bi kan mooy gagné marché yi est-ce que ki koy gagné am na compétence yi waaw est-ce que kooku tamit euh, euh, ki xarañ na lool est-ce que war nañu continuer sax di jënd yenn yi nga xamante ni war nañu xalaat tey ne mën nañu am une industrie boo xamante ni moom moo koy defar wala ndax dañoo nar a continuer rek di jënd arme rek wala ndax dañoo nar continuer lépp lu ñu soxla rek dem wuti ko wala ndax dañoo war a di ko defaree fii kan mooy defar caserne yi kan mooy defar brigade gendarmerie kan mooy defar nangam loolu askan bi mën nañ ko xam ñu xool ndax c'est une industrie locale ndax c'est le secteur privé national moom moo koy defar wala déet tey jii boo demee feneen même le salaire du président de la république nit ñi dañ koy xam ñu xam lan lay am Euh, et pour man dans ce sens-là ce sont les euh, corps de contrôle aussi qui ont un gros boulot à am nañ ci liggéey bu bëri boo xamante ni war nañ ko def. kon balaa bi mën nañ koo muuri tuuti naam bu ñu muuriwut lépp tamit ñu muuri ci as lëf ñu xaw la ca biir tuuti fii il faut que ñoom ñu xam ne. Mm. ñëpp a bëgg Sénégal. ñëpp a am aussi benn conscience une haute idée de ce que ce pays-là euh, li mu nekk ak li mu war a nekk. c'est-à-dire que fii kenn du fi buggul xam information boo xamante ni dafay nërmeel suñu réew kenn soxlawu ko nit ñi kay li ñu jeexi jaaxa bu amee nit ñi li ñu bëgg a xam wax leen ko ne leen nangam la jar diw moo ñu ko jaay ban cabinet nga consulter ba mu yebal la foofu ne la demal jënd ko ban cabinet la ñu consulter boo xamante ni moo ñu rediriger ci Airbus pour ñu dem jëndi ko parce que cabinet ngay ngay commettre cabinet boobu daal di xalaat kan moo nekk ci cabinet boobu. ah am na ñuy wax ne xëy na Philippe Bon bi nga xamante ni moom moo yoroon. Air Sénégal moom moo nekk ci cabinet boobu est-ce que dëgg la walla du dëgg nañuy wax li nga xamante ni askan bi dañu ko war a yëg ñu yëg ko dafay dafay dafay féexal xol yi. surtout a xaar ba yëf yi jeex ñu mettre dafay féexal xoolal tey jii communication de crise bi ngay dugg après. coow li jóg na ngeen daw ci plateau yi. quand le quand porte-parole du gouvernement dem. Euh, vingt heures RTS juste pour expliquer sur l'achat de de euh, avion c'est problématique ñoom ñëpp ñu daw assemblée nationale ak ñoom ñëpp ngir expliquer alors que loolu mënoon nga ko wax ci ndorteel ba mu leer et ça passe comme lettre à la poste. Mm. xëy na eh, dernière question mm, dem Rwanda parce que am na benn image boo xamante ni euh, mi ngi def buzz en tout cas en Afrique bi fa Macron di ñëw gars yi di ko teelu ci aéroport ba. ñu ne Kagame da ko yebal ab ab comme ñoom ni def suñ président yi buñ tukkee duñ leen gàttandu gis nañ aussi le discours ak li nga xamante ne aussi Macron moom lañ ko doon xaaree fële ca Kigali Pape Djibril lan la la inspiré comme commentaire. ah man de damaa yàgg wax ñi may topp yëpp xam na ne yàgg naa wax ne nit ñi te teetoo président yi fii neexuma de jël gouvernement bi yëpp yóbbu leen aéroport nga toog fa ay heure gouvernement bi yëpp nga rangale leen ci tarmac bi ñëpp toog nga mobiliser toute la république pour pour te booy dem. dëkk ba ngay wàcc ñoom ñu yëg ne sax yaa ngi fiy ñëw duñu yëg ne yow président Macky Sall mu ngi fiy ñëw wala président Alpha Condé mu ngi fiy ñëw mais gis nga république ay symbole la symbole dafa am solo te ñun fierté boobu xoolal démb li xew Rwanda mais africain yëpp ci fier te ñun duñu ay Rwandais mais ñun ñëpp suñu xel daf ci fier on on était tous des Rwandais te parce que dañ ñoo fayul exactement exactement ba pare ñun li ñu bëgg moom la France def nee naa nee naa Kagame rek defal attention parce que ñoom dañu doy waar. bu ñu bu ñu nangoo lii rek am na leneen lu ñuy waaj maintenant Macron en a besoin Kagame aujourd'hui assume un leadership africain bu am solo Macron jamais le sentiment anti francais moom moo ko wax ni mu développé woon nii donc dafa soxla ci leadership bu mel noonu wékku ci ngir mën a dimbalikoo loolu pour mën a defaraat image am en Afrique ce sera extrêmement difficile Kagame la bëgg a utiliser pour ça jàpp na ne bu normaliser ses ses ses rapports avec Kagame Kagame mën na ko tijjilaat buntu boobu pour mu defaraat ses relations. te commencé nañ ko parce que reconnu de responsabilité France ci génocide bi boo xoolee ki jiite aussi organisation de la francophonie te ku ne xam ne Rwanda dafa bàyyi woon français dégg làkk anglais. ba tey anglais lay doxal. Mm-hmm. nee daal moom dina ci góorgóorlu nii rek waaye loolu day parce que tey jii moom jël na francophonie téye ko. Hmm. daal dina leen nag dama koy def diplomatie économique. parce que soxlawuma parce que francophonie en réalité c'est beaucoup plus des valeurs véhicule de valeur la. que que économie parce que tey jii francophonie dafa man lan la la mën a dimbalee pour nga développer. waaye ñoom la langue bi dafa am valeur yoo xamante ni dañ koy bëgg a partager ak dëkk yi nga xamante ni ñoom la ñu coloniser woon instrument de domination la. te langue nag warul nekk véhicule de valeur yooyu en réalité dañu war a nekk de travail. loolu la Rwanda comprendre def migration bi rapidement dem ci anglais di ko liggéeyee di ci góorgóorlu bu baax et que aujourd'hui franchement ñëpp war nañu ñaan yàlla dëkk boobu suñu borom sàmm ko et que ñu def ay émule un peu partout en Afrique ñun man suma sañoon président France bu ñëwee fii day dem camp Thiaroye directement assumer seen responsabilité bi Thiaroye suma sañoon gan bu ñu am day dem Gorée directement ñu wax ne ne pendant trois siècles et demi dañu doon jël fii ay nit di leen takk di leen yóbbu ñi fi demoon tudd ay tirailleurs dem xeexali leen ba libéré leen ñëw di laaj lu ngeen ñu ameel ñu rey leen dugal leen ci fosse commune mais fii la xewee mais responsabilité boobu ñoom aussi il faut que ñu assumer ko mais nag mënoo maa mënoo maa rey ba pare nan lañ koy waxee sax. dëmm rey la jaale la. dëmm rey la jaale la c'est-à-dire que mënoo maa def loolu yëpp lu métti loolu yëpp nga teg ma ko te booy ñëw ma mel ni yàlla bu ndaw laay gis Cheikh Ahmadou ba ci benn xasaa yi dem bu tudd Ilhamu Salaam dafay wax ne. dafa am ci ay nitu sunu nitu jamono ñoo xamante ni dañoo jàppee tubaab bi malaayka rahman koo xamante ni soo ko gisee rek day ñëw malaayka boo xam day ñëw régler sa problème yépp alors que en réalité ñoom bëgguñu lu dul seen bopp ils défendent leurs intérêts mais waxoon naa fi aussi ne la France ne pas infréquentable on a absolument rien du tout contre le peuple français waaye nag méthode du ñëw jiite France depuis toujours mooy ñoom bañuñu crime bu nekk ngir seen nekk bopp boo gisee lu ñu def Gabon boo gisee lu ñu def Guinée boo gisee li ñu def Sékou Touré ni ñu xeexee moom ni mu ñaawee mais boo gisee li ñu def fii seen loxo mësul jóg ci ni ñuy doxale suñu réew yi. daal loolu tamit euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk suñu réew mi tamit suñu kilifa yi dañ ci am wàll. ndax dëkku jàmbur boo fa ñëwee sañ fa lenn li c'est parce que am na fenn foo wéeru ku la ko yombalal ubbil la buntu ya nga dugg mais asu derrière chaque Thomas Sankara il y a un Blaise Compaoré malheureusement <laughs> malheureusement malheureusement pour l'Afrique defe naa ne euh, bokk na ci xëy na li ñu gën a sonal mooy nooteel bi nga xamante ni si génnuñu ci ba tey responsabilité na ñu fonk suñu bopp na ñu tey ji par exemple xoolal éco bi ni coow li mu am mais Maroc du ci bokk de parce que am na monnaie Mauritanie du ci bokk de am na monnaie mais ñun lan moo tax mënuñu am sunu monnaie ñooña la ñu am yëpp ñun am nañ lu ko ëpp banque bu mag bu ñu moom sax mënuñu ko am te ñun war nañu am sunu banque war nañu am loolu yëpp c'est-à-dire que jël sunu sunu sunu kii daal man daal. defe naa ne bu ñu xoolee Paul Kagame mu ni mu doxalee xam ne moom sa bopp gëm sa bopp mën na laa jëmale. mais du moom rek boo demee Kenya tey ñoo ngi góorgóorlu boo demee Éthiopie. de très loin ils ont connu quand même mais boo demee Éthiopie noonu la woon xiif bi boo demee Kenya noonu la woon mais ñoom ñëpp ñoo ngi def ay jéego yu am solo ñun def nañ ay jéego mais des na encore des na lu bare bari te France nag. ñu nag Abidjan rek yaakaar de bu ñu ñàkkee rek ñu nag Abidjan ñun rek la yaakaar. ay jëm Sénégalais yi ba léegi ñun ay xiif ay chétif la ñuy xaar tey jii soo fa tegee tànk aéroport ba rek daal la wax da ngay da ngay waar. di boo xam ne rien que leur flotte. Thierno Nane na. dem na ba ah dana rien à gis nga ñoom ni ñu fekkee ni ñu fonke seen làkk dëkk boo demee tey jii da ngay gis ni ñu fonke seen làkk dëkk da ngay gis ni ñu fonke seen i symbole da ngay gis ni ñu fonke doo dem def fa n'importe quoi accès au foncier xam nga fii moom boo accès rek am titre foncier xam nga foofu bon mi ngi doon daal borom xam-xam yi dañu naan jaam rek ngay jàpp soppi làkkam soppi santam te defe naa ni foofu moom fi mu nekk nii weesu nañ ko grand boobu ba ma bàyyi la nga jaajëfal Pape Djibril ñu fas yéene xus ci ko gërëm dañ koy di ko ñaanal yàlla yàggal taxawaayam <laughs> laa ma amin defe naa ne kaasu café bi egsi na de Pape Djibril kaasu café bi na ba jeex na wala jeex na xam nga moom nag xam nga moom ñaari cër la am ci man <laughs> moom sama grand la waaye sama njaatige la di ko gërëm di gërëm Cheikh Tidiane di la gërëm bu baax astu tamit euh, kontaanoon trop ci ci daje bi e, di masawuwaat bu baax a baax suma xarit boobu Babacar Lelo euh, di ñaanalaat bu baax soxnaam. mooy li nga doon wax ci Jakarta yi rek. Ah, ah. encore une fois am na ñu ci doon def ay polémique mais li ñuy wax risque bi ak danger yi nga xamante ni moo ngi koy jot gis nga Dakar fa yii coow li. Jakarta yi jël nañ place taximaan yi te ku ne xam ne dafa am risque yu rek yu ci nekk. donc il faut que nit ñi aussi jël ay mesures ci wàllu woowu sinon quand nit ñaa ngi ñàkk seen bakkan ci dans des conditions yu difficiles. et, et surtout Astou que le législateur anticipe sur tout ça tey jii boo jëlee tricycle yi nga jël charrette yi nga jël boo demee ci yeneen réew yu développé yëpp lenn lu nekk ku nekk dañ lay wutal sa wàll. wutal la formation xam nga tey jii ba ci doomu aadama viam dafa sacré mënuñu continuer nit ñi di faatu nii rek ñu koy ñu koy romb nii sa à dire que ñu xool kiy dawal. est-ce que war na dawal est-ce que am na formation est-ce que am na assurance est-ce que am na nangam loolu dinañu dimbali daal. Hmm, dinañu dimbali comme ni ñu koy waxee aar sa bopp aar sa askan am na solo encore une fois ni ko Pape Djibril waxee di ko masaw di masaw njabootam ñaan yàlla soxna soosu ci xippee aljana Firdawsi jërë ngeen jëf yéen tamit seen rafetlu seen ànd ak télévision Futurs Médias léegi léegi ñu xuus ak gan gi.